Ousmane Tanordia, Dia au conseil des collectivités territoriales mode du tey ci Bicha Bordeaux fële de France ginnaaw feebar bu ko de lu yàgg moom secrétaire général du parti socialiste ak allié bi gën coalition Benno Bokk Yaakaar moom meeru Nguéniène ba woon chef de cabinet bu premier ministre bu Abdou Diouf laataa secrétaire général du parti socialiste ba Wujie Boromo.